ay campagne kii dafa am ak mars ak booy di toj banque yi yeeg booy di yàq magasin jàmbur yi di sàcc seen téléphone yeeg booy seen agressé bi ñu dëkkee booy yëpp bàyyi ko léegi man tamit dama dajale comme si que dem si ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalkat yi wala ñoom ñooy agresseur wala ñoom ñooy booy metti quoi mënoon gars yi woo si kaayam taal dëkk bañ taal station bi buy tàq am nañ droit dem ne warul tàq ah. loolu kese la toog nañ suñu koñ ñi ni am na ñuy taal seen station xar yàlla ñu dem fa wax ak ñooñu ñooñu dem ñu toogaat tuuti ne boo yaa ngi station fila kii bi. liberté 6 ñu ñëw pour couvrir boo ñu bañ a taal station bi station bi bu tàqee ba ni bëm day laal yeneen kër yi day yegg si suñu kër yi fii ñun ñun fii lañ dëkk station baa ngi nii ak fii doo jógee ajak jak ñëw ba si station bi yor say na teg ko fi taal ko demaat ñibbi mais yow ba booy ji jub yëgoo leen de wala comme lan ñu ngi taal fële mën a xale yi kaay leen ñu wax ak ñu bañ a taal kaay leen ñu dem fay man la maa ne xale kaay ñu dem ñu fay fële gaa yaa ngi daal ba ñu yegg si alkaati yi commencé xam est-ce que jaawale wuñ ñoo booy yi commencé ñu dóor ay Jacob Masel yaakaar ne ñun dañu pare pour taal dëkk bi. moo nekk waaw gis loolu kese la ah. lu mbooloo bi doon bari yeeg yëpp yëpp comme dof nday su jógee xale mi jug. mbooloo bi jug xar yàlla grand bi jug loolu nga doon gis noonu. juguñu mënoon nañ jug parce que ñu bari bu ñu nekkoon taxaw fa ku romb ak sa jakarta ñu door la pompe à gaz la. ku takk or ñu këf ko buñ talé station bi taw jéem récupérer li fa baax compte bi yobbu ko mais dama ne xalé lay fu bandi war ngeen ko bàyyi war ngeen am jabar ak dom war ngeen xol ci ndey ak bàyyi mhm. kon so gisé sa koñ koñ bu nekk di mobiliser wu pour yàq né nga boy yi tal suñu dëkk bi defarul dëkk bi quoi ñi ngi taal station bi ñu ni du tàkk lolu moo ñu fa yobbu xam yàlla na ko yàlla defal. waaw non man li ma leen di wax mooy comme yow. man du ma la wax faralal Sonko du ma la wax faralal Macky. foo am sa carte yóbbu ko man mii di wax ak yow man musuma fote te man. ba Macky di fal amaguma woon quarante kon seen papa yi seen yaay ñoo fal Macky man Macky falu na lu yàgg may doog am quarante kon man faluma Macky Sall mais tamit na xale yi kaa leen jóg taal dëkk bi wala taal suñu koñ bi wala taal fii daw toj station yi daw toj banque yi daw toj télé jaay ko téléphone yi sàcc yenn affaire yi yooyu la mobilisé wul xale yi. laay fu bandi laa wax bàyyi leen ko xool leen si ndaay ak bàyyi. booy bu fi jóg di dof dof lu ma ne la yemal nii la ak nii. bu bandi yi formé wee pour taal pour sàcc ma ne xale yi kaan dem fatt leen bu ñu yeggee wax ak ñoom bu ñu dëgëree bopp bu ñu mbajam mbajam mbujum mbujum loolu kese la. loolu kese la sànq de nga gis waa dig kaw si si ñun central écritis. police su Grand Yoff ku nekk yow gis na leen. waaw wàcc si nañ wàcc si nañ. police yu jëppal ku nekk yaakaar ni voilà parce que mbooloo bi ñu gis la. te du benn ñaar dërëm bu ma leen fay. waay waay waay du téeméer bu ma leen jox. loolu leen lancé. ay jeunesse ngeen war ngeen mën a am lu ne. bu leen kenn wax kaa leen taal fii ngeen taal. te foo leen gis muy tàq fay leen ko moo ëpp doole comme yàq. kese. mais sànq dañoo gis euh, nga def réaction bu bu nice moo sax acte bu nice moo tax fi mu toll nii ñu ñëw ba fii pour interview la parce que gis nañ ne ku bëgg Grand Yoff nga ku bëgg jeunesse su Grand Yoff nga léegi ñu lay laaj yow ban position ak ban ban ban kii nga am ci kii Grand Yoff quoi jeunesse Grand Yoff. waaw baal ma baax a fayal ma bi ah. waaye bi. comme li ñu am si Grand Yoff bi comme ñëpp rek. waaw. yàlla def na fi ay Cheikhou Kouyaté ay footballeur lañ multimilliardaire lañ. Mhm. yàlla def na fi ay. mag nijaayu àll bi dañuy Khalifa sàll mi ngi fi. ay Pama Diop mi ngi fi. Adama Faye mi ngi fi. façon milliardaire bu mi ngi fi. aw ma nag ay milliards xam nga. koo amul lu faj jee yaayam bu dof bale amul fu mu dugal xale yi. mais depuis ba ma ne laay fu bande xale yi war ngeen ko bàyyi ba tey woy ko. sensibilisation nekk ambassadeur sensibilisation banditisme au niveau de partout fu nit di ko dégg rek. Uh-huh. laay fu bandi war nga ko bàyyi war nga am jabar ak doom xamal ne maa ngi yeete. wallaay du 1000 nag bu ma am si salaire gouvernement bi wala dara. mais Sonko du fi toog ba keneen ñëw ne taal dëkk bi ñu taal dëkk bi. Macky Sall toog ba keneen ñëw ne taal leen dëkk bi ñun ñu taal dëkk bi ñun que le meilleur ku am sa 40 su la neexee nga votal Sonko su la neexee nga votal Macky man mosuma votal Macky Sall sànni ko ay carte seen papa yi ak seen yaay yi sénégalais ak seen tante ak bàjjen ñoo fi fal Macky ba Macky di fal aw ma 40. wante ma wax xale yi déggal ma moo gën a yomb comme Pape Malick Ndour ministre intérieur bi ministre de la jeunesse bi wax xale yi dégg ko parce que maa ngi si terrain bi ak xale yi maa ngi sensibilise xale yi maa ngi leen bokuma ci dara kom kaa leen ñu yàq kaa ñu dajji kaa leen ñu sàcc kaa leen ñu rey. oui en fait euh, donc léegi ben internet mo ngi laajte mo ngi naan euh, nga leral euh, li nga xamanteni ni koy dégg ci Amadou Sall ndax Amadou Sall daf la jox xaalis wa am déet waaw. man bu may dox nii Jakarta laa tëdd jee bu may ñëwaat fi ni Jakarta laay andi suma may oto ba muy pan xam nga boobu jugewul ci Amadou Sall da ba ma xamanté ak Amadou Sall ba tay dawaluma auto booy gox bi yëpp xam nañ bu may ñibbi Jakarta laa yéeg bu may ñëwaat Jakarta laa yéeg. Uh-huh. heure ndogu bu jotee mbaraxe laay yónnee léegi 2000 wala 1500 lekk ko xale yi. xamante ak Amadou Sall du mil defuma milliardaire defuma millionnaire. Uh-huh. ba may yóbbu Amadou Sall Ousmane Baldé léegi ça fait xam naa ko ñi ma xam xam nañ ne tey laa gën a nekk galère man dëgg la wala déet. waaw eh, comme loolu la rek. xam Amadou Sall dawaluma fi oto amuma ci kër amuma ci dara sama xarit la soppe comme ni ma xamee Marcel Diagne nu ma xamee Ilimane Lam milliardaire nu ma xamee Pelli Diop nu ma xamee Abdou Aziz Mbaye général nu ma xamee Cheikhou Kouyaté milliardaire suñu koñ ak ah, ah maman Diaga yaay Waly Seck nu ma xamanteeg Waly noonu laa xamanteeg milliardaire yëpp isi owel ñi ma yóbbu ma voyage comme nii laa leen xamee say soppe la ñu en tout cas loo mën a jox conseil booy yi nga xamante ni ñu nekk si mbedd nga xamante si situation du ma leen loolu comme li wax si live bandi war ngeen ba bàyyi war ngeen am jabar ak doom xool leen si ndey bandi lu la may dina la ko fay police kaso mbala dee bandi. ku si sàcc ay milliards tey ne nga dem taali ji station sàcc ay milliards tôt tard di nga ko fay di nga dem police wala di nga mas a dinañ la mas a jàppaat dóor la ba nga dee wala di nga dem kaso comme bande amul njëriñ ma ne ko déggul waxu ndey déggoo waxu baay soo déggul waxu maam di nga dégg waxu commissaire man commissaire yi il m'a respecté de mosuñu ma dégg si sàcc suñu ma dégg si jaayum dorog mosuñu ma dégg si rey nit mbir mi dof nday bi nag bari na dof nday dof nday comme doomu dof laa jeudi ajuma mën naa yëngal comme li nga gis nii ah. du kenn ku nekk ci gouvernement bi koo ko gis du benn salaire bu ma si am c'est ko que buñ taal suñu station koñ. Ah. mais en tant que ambassadeur. aw yàlla bu dàq léegi. suñu kër yi dàq. en tant que salaire kon. salaire ban bu jógee ci gouvernement bi. gouvernement bi musuma jox salaire. mais gouvernement jox dërëm. monsieur le maire Fama Diop bi moo ko falee moo ma fal ambassadeur mooy suñu monsieur le maire bi ne ma yaay ambassadeur sensibilisation banditisme. li nga way yegg na fépp si ma musuma jox salaire. Macky Sall musuma jox salaire Amadou Sall musuma jox salaire. dégg nga li ma la may takk sama ñaari jabar di leen may ku nekk un million boobu mosuma gis Amadou Sall ba may jënd kër terrain boobu xaw ma Amadou Sall ba may rey ay nag fii nii samay ngénte sama ñeenti doom xaw ma Amadou Sall xam Amadou Sall yokkul dara si si man si millionnaire wala def ma dara su ma tolloon laa toll ba tey. léegi lan ngay xaar ci euh, maire Grand Yoff. maire Grand Yoff. maire Grand Yoff bi bàyyi koog ñi nga xam ne ñoom bëgg nañu maire bi man bàyyi ma ak li may jéem pour wutal band yëpp ñu am liggéey pour wutal jeunesse bi ñu am xëy pour xale yi am ci xëyu ndaw ñi muy Sonko toog fii na ma dof nday bindal ma xale band yi nekk grand xar yàlla ñu wutal leen liggéey ma bind ko man yooyu laa ci bëgg a gañe Macky Sall noonu te bindaguma ko laajaguma ay booy mais gisoo comme ça genre yu mel ne yow euh, état di leen recevoir di wax ak yéen yéen tamit ngeen mën a wax ak gars yi parce que état moom mënul jote ci ñooñu te yéen mën ngeen a jote ci ci ñooñu. waaw moo tabaral ñu ne la comme bande amul njëriñ xoolal si ndey ak bàyyi wutil liggéey wutul xëy bàyyil sàcc bàyyil fen bàyyil agressé loolu lañ fi wax te tam ñu ciy dem ak xale yi ba tey. moom tey mbooloo bi nga gis nii mbooloo bu toll noonu foo ko gis rek ñoo dinañ si boole sàcc wala këf wala géej mais amul benn xale buy nangoo ànd ak man kaay dem fay nga ne yaa mais liggéey bu rafet bi ngay def noonu kenn kenn même maire bi sax masula kii yu mel noonu. maire bi bu ma wootee conseil dina ñëw su ma ko tuddee mu yëkkati deux cent mille wala trois cent mille na ma am jàppal si affaire yi yokkal naay sama xarit la Pama sama fans la mooy ki njëkk a ñëw suma conseil moom Pama Diop monsieur maire bi. monsieur moom ma booleel sax comme addira comme Amadou Sall. comme kii naka la tudd Asafula Adama Faye. Adama Faye. te bokkuñu parti sax. léegi foofu man damay profité wàll di laaj projet day dof nday yi fan la toll fi mu toll man suma projet maa ngi sama aar man lépp lu may def mu ngi suma musique maa ngi suma aar bu ma way baax na ma way jiwul maa ngi suma kër ak suma yaay. Hmm. newu ma ci jaayuma ma dorog wu ma sàcc ma aw ma salaire ci gouvernement bi aw ma benn teraanga bu jóge ci gouvernement bi bu ñëw si man. jàppale wuñu samay xale ku dul Marcel Diagne daal moo si yëkkati 10 jakarta jox ma ko na ma jox ko say booy koñ yi maa ko jàppee muy sëtu Blaise Diagne multimilliardaire la moom la Pape Diouf di woy ah. Marcel borom jilaas maa ngi koy nuyu moo ma jox 10 jakarta na ma jox ko xale yi moom laa séddale xale yi bu may dem jakarta laa yéeg wala jël taxi wala cag-cag yi Amadou Sall du ay millions yu ma jox kon ma dawal ay comme yéen ni ngeen dawal sax sa dernier mot lañ lay laaj. su ma dernier mot mooy du dara que le